noonu la ñuy politique mais mais mais Yérim xam nga dañoo dissoudre Pastef mm-hmm. ñu ne candidat indépendant bu Pastef bu un an jotul mënoo nekk candidat Pastef mënul présenter candidat waaye njega si la nee na parti wala coalition de parti bu décider porter par exemple la candidature de Benno Bokk de de de de Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. cette candidature là mm-hmm. elle valide elle est valable. Ndiaga Sylla analyste la buy wax xalaatam. non c'est un expert électoral. Eh, euh, d'accord expert la buy wax xalaatam. ah waaw mais ñeneen ñi aussi dañu am xalaat di ko wax. te Bassirou Diomaye ba muy jël fiche de parrainage. xam nga xam nga jëlee ko en tant que candidat indépendant xam nga Ndiaga Sylla dafa am xelam ak xalaatam ñeneen aussi am seen xel ak seen i xalaat. man nag damaa yemul ci xalaat. xam nga su ma yemoon ci xalaat rek mën na jàpp ni jus de cerveau laay def. man yenn saa yàlla damay baax may xam liy xew wala liy ñëw. mais lan mooy sa différence donc li may wax non defal naa defal naa xam nga xalaat rek man damay amul ci xalaat damay jéem a xam li may wax comprendre nga baax li ma la wax te waa Pastef moom vraiment war nañ maa déglu nañ bañ a perte temps ñu wuti beneen candidat. mënul doon ñoom sax xam nañ ko. parce que boo gisee seen stratégie da ngay xam ni ñoom xam nañ yëf yi. parce que dañu jël Bassirou jamaay na ko demal defi parrainage citoyen instant bi ñu gàdde ñoom seen ay député dañuy pour am beneen jokkeer ñoom ñu ngi politique. moom ak Guy Marius Sagna pourquoi pas ouais. même ni mu ci taq rëpp nii est-ce que Cheikh Tidiane Dièye gënul gën a neutre. parce que Tidiane Dièye il a son mouvement il n'est pas membre de Pastef. mais Guy Marius xam nga def cee tax gën a tax lool lool lool lool moo tax. te xam nga Pastef aussi boo demee xel lañ de dañuy xalaat de moment bi moom ñu ngi xalaat moom am na benn moom dañu jàppoon ne mënoon ñëw brutaliser réew mi xam nga bousculer nit ñi napp leen poñe leen téye réew mi bañ demee ba xam ne loolu mënta sotti léegi ñu ngi xalaat